ay bu njëkk waxuma jigéen sol pantalon waaye góor dong bu commencé na sol waa kër ga daw booba da dangay ragal tubaab bi ndax nga mucc ndax ñu yàlla tuddee sufaha boo leen jàppul sufaha commencé leen roy moo tax terme bi yàlla waxee te kat ustaadam bi mu ci noppee ba siwaat daf ne wa ilaa madyana axaahum shuayba wa ila madyana axaahum shuayba kon yonent bu yàlla yónni dafa wax ci say mbokk laa la yónni luut nag yonent it ku ma sa ñëw danga naan yaa xawmi wax bu dul laaha maa lakum min ilaahin xayru am déet nooxul ñëw direct looxutun kon luut ñëw direct rek is qaala li xawmihi atatuna alfaahisha ñee dañoo ñëw di régler aqida moom mu ñëw rek song société bi waaw ñee dañoo ñëw ubudullaha ma lakum lan xayru foofu lañ tàmbalee mais moom tàmbalewul foofu de dafa ñëw rek ataatuna al faisha waaw mu ne mbokkam yi lu tax ngeen ñeme lu bon al faisha lu tax ngeen ñeme lu bon waa dëkk ba ne ko waaw lii loolu mën na leen innakum la taatuuna alfaaisha ay la taatuuna rijaal alshahwa min dooni nisaa yéen a ngi wut bànneex ci góor ni yéen bàyyi fi jigéen ñi te gis nga góor sax gi am jabaram di joteeg moom ah, ah, ah. fi nga xam ne fi lay demee toilette ngeen baal ma ci baat bi kooku sax yàlla ne yunti nee na bu yomal xiyamee moom yàlla du ko xool moom moomu noonu waxuma laa nag benn xaaj bi mu ne leen mu ne leen mu ne leen euh, atatuuna alfaaisha maa sabaqakum biha min ahadin min alaalamin innakum la taatuuna rijala shahwa min duni nisa bal antum qawmun musrifun yéen a bon waaw mu ne leen yéen a bon waaye oustaz daam li tax yàlla tànn lóot mooy daa xam ne ñeme naa dénoncé mbon googu penc mi dafa am yooy lootun bi ko yàlla yónnee day wax ca mbon ga mu bëgg lu mel nii nit ñu wax ci ba waa penc mu yëg ne lii ba waa penc mu yëg ne lii ñépp bàyyi ko te bañ a ànd ak ñi koy def man dey danaa koy nekk léeg-léeg Oustaz soxna si daa togg añ ma ñëw añ bi xamuma ko ndax du maafe maafe moom xam naa ko du ñaaru ci du ceebu ganaar du ceebu yàpp du mbaxalum saalum du laaxu caaxaan du serag man xawma ko ma ne ko waaw soxna si loo togg tey mu ne mbaxalum góor jigéen ma ne ko waaw kay man kay bii palaa xaw ma ko waaw comme comme ñamaguma ma teg fa kuddu dem bitig ba jënd mbiskit comme mbiskit moom sama xarit la dëpp kub kub ndeysaan mon copain mbiskit mu ne ma tutul tàkk ci kër gi de ma ne ko ah kon di jaar man nag comme du xuloo soit daal oo boo xuloo kaay dama la fay bàyyi ndànk rek dem jëli miskit miskit moom sama xarit la macha allah moo tax soxla sa jëkkër ji daf ñu ko demee ñëw Sénégal mun na ko foo toll mun na ko Mauritanie mun na ko waaw kay Saalum Sall dafa bëgg jël <laughs> mu jënd ci ko miskit ñu <laughs> may bëgg a dem màkk laa maye la ci des waaye màkk <laughs> maanaam lii yàlla daf ko bañ bañ mu ànd ak moom bañ léppam waaye waaye bañal léppam ñun ñoo ñemee toog ci télé bi di seetaan affaire boobu mu doon théâtre walla film walla série nga toog di seetaan ku yàlla jéppi bu koy duma nooy def da duma yàlla bu nu yàlla duma waaw waaw macha allah kon saas waaw tabarkalla mu ngoog mu ngoog mu ngoog kon sunu borom borom foofu mi ngi fiy jàngale njàngale mu am solo mooy yónni bi yónnent mu ñemee wax li xew ci pénc mi pénc mi kat li ciy xew na ci boroom xam-xam yu wax te bàyyi nag seen xuloo seen diggante hmm? boroom xam-xam di wax ci xam-xam nga weddi ko ci lu dul xam-xam mbaa ngay wax ci mbaxanaam mu weex yaa ngi faussé débat bi te su boobaa léegi nit ñi ñoom loola la ñu topp diw tontu na ko diw tontuwaat na ko ngeen di dem rek waaw danaay léebal oustaz Alioune Mbaye léeg-léeg kero ba xaj an léeg till defe na mbokkam la ñuy waxtaan ba ci bopp koñ bi rek till ne ko lee ganaar la xaj daw ba jàpp ko jàpp ñu toog nag di waxtaan kan mooy lekk bopp bi tilil na ko xanaa man mi la ko wan mu ne ko ah, man mi ko jàpp nag kurpañ ya tàmbali bi kenn ku ne dóoree sa morom kurpañ bañ bañ boqante muus jaar fa ne ko coppet ganaar ga yóbbu kurpañ yi dal kurpañ yi dal ba mu yàgg comme till lañu ñu ëpp doole mu ne ko grand jëlal bopp bi mu ne ko mooy am jàmmaam de léegi ñu kenn ku ne bàyyi sa morom ñu ne ana ganaar ga waaw keroog la wolof tudde muus muus parce que ñaar ñiy xuloo ko xeex ko dóorante ko def yëf ñi ngi bàyyi lu gën a nekk farata doy te réew moo xam ne it école des arts bi doon am di jàngal nit ñi wàllu aar bu fi jógee taf yëngal doo nga fi des man de leen la ma seetaan scénario boo xam ne mën naa bind bu ko dàq gën ko waaw laaj ko Fallou Cissé yàlla ko yàlla yërëm taf yëngal léeg-léeg ñu defal la série boo xam ne bi du jeex mukk parce que mënuñoo def fin bi parce que scénario day am tàmbali ak lim ëmb ak fin bi boo mënti bind fin nooy def taf yëngal rek sponsor yi di ñëw ngay dem rek yàlla nu yàlla yërëm te nit ñi nag ñoom it série série boo bëggee mucc seetaanal benn te bàyyi waaye ñett yu tegaloo jàpp nañ la ak siir bu mën a doon nag maa ko Saal Mbay mi bu ñu fa nekkoon ca télé ba génn suñuy pot képp di ko tëgg boo nu seetaan ñettoon dootoon nu bàyyi waaw yàlla lu yàlla yërëm gis nga boo seetloo noonu la ñuy jéem a def ci suñ waxtaani fajar def ko noo xam ne waa ji topp na la dootu ko bàyyi bu ko defee nag léeg bët bu set nga ne ko ah, nangam di baaxut ah nangam di nangam loolu télévision yi dañ koo xam tafsir moo tax dañ koy doxal kon kon kon euh, euh, mbir moomu nga xam ne mooy góor jigéen yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci sunu mpénc mucc ci mbokk yi sama juróom-ñaar lu tomb mooy boo duggee ci téere fiq yi ñoom dañ naan amalu xawmi luut amal xawmi luut jëfi mbokki luut ya waaw ndax ndax mbir daf koy may toogaay gis loo soo seetloo euh, média yi média yi buñ la ignoré bokkut ak buñ la jubloo buñ la jubloo mën nañ laa jublu ba ñépp defa yaa fi nekk waaye buñ la ignoré kenn mënta tax nga génn moo tax ma la koy wax ci suñu waxtaan ni alkitab média d'état média privé média d'état média privé benn addis moo nu koy jàngal ci addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jullee ñaar rakk yi ca tisbaar ja dem toog fa leen ni saxaaba yi yi fi jiitu ñoom ñooy média d'état ñu ne jàll saxaaba yi fi jiitu xam nañ ne yonent bi ñaar rakk lañ julli waaye ñu ne jàll média privé nag mooy suul yàdde yi suul <laughs> yàdde yi moom démb la ñëw ci diine ci démb wala barki démb yonent bi sël ma toog mu dem fekk ko mu toog ne ko waaw dañu wàññi julli gëm dangaa juum loolu la ko wax média privé yonent bi ne ko juumuma wàññi wuñ julli gi loolu la ko wax moom it mu ne ko ah kay ñaari moom benn am na ci waaye suñu bàq yonent bi gestu média d'état ne média d'état est-ce que les médias privés wax dëgg la ñu ne ko waaw ñaar rakk di nga julli mu ñëw motti li julli ga sujjóot ba abda salaam ne li ma dal kum dal ci defal kon ci wàllu yëgle xamle yu mel noonu dañuy xam kañ la ak naka la ak nu ñu koy defee lu ko may nga siiwalal ku warta siiwalal waaw mbokk yi li ñuy tuddee ngóor jigéen kirim la ci lislaam min akbaril jaraay waaye mbir nag danaa jëw kanam léeg-léeg mu nekk kirim nit ñi bañ koo jàppee kiim fekk la nekk euh, nekkul kiim nekk maaruf ñu jàppe ko munkar adduna tukki lii dañ ko war a jàppe ne lu baaxul la nit ñi jàpp ne dara nekku ci adduna tukki muhaajir laa tansamaa bi du'aay allah yu barik akramakum billah Chérif neen daa bëgg yeewe ku Saalih ngeen gunge ko jërëjëf am yàlla fay la sa teewaay jataay am na solo ndax yéen ay surafaa ngeen te bisu tey bi ci seen bis yi la bokk ana la yàlla fay te sàmm la ba déwén te weesu kon kirim l'islam da koo jàppee kii mais penc mi nag léeg-léeg ñoom duñ ko jàppee crime maanaam dañuy defe ne ci sañ-sañu nit ki la bokk te bi ko nit ki def jeexal na ay sañ-sañam mi ngi ci sañ-sañu jàmbur sans al fii sama loxo bi yam fi la samay sañ-sañ yow fi la sañ-sañ tàmbalee léegi nag buñ bàyyi nit ki mu dugg ci ay sañ-sañi jàmbur yàq gi mooy ëpp defar mu tax lislaam jàppe ko kii waa penc lu mel ni ñoo xam lislaam jàppe ko njombuteef maanaam lu nit war a jomba def mbaa mu rus koo def ndax yàlla dafa bind adaka wal unsa dafa na am loo ko ci alxuraan yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa ñaar ñu la yàlla bind maa leen bind ci diggante ku góor ak ku jigéen ku góor ki nekk baay ku jigéen ki nekk yaay am lu la yàlla wax léegi ñu bëgg fee bàyyi nag min zakarin wa unsa bëgg wax min zakarin wa zakar loolu du dem waaw loolu du dem kon njombu teef la waaye itam mufsida lil ko day yàq jikko mbirum ngóor jigéen daa bokk ci di yàq jikko te jikko nag li feeg nit a koy am mi ngi fi bu ko noppee am xeet wa tàngoo wa innama al umumul axlaaqu ma baqiya wa in humu dahabat axlaaquhum dahabu ok mbàkke ni leen ziyaare baax alam na sëñ moo